lii di tamit loo xamante ni yàlla wërsëgale ñu ko muy ay ressources naturelles ba dolli ci delloo ko ni sax mu am ci léegi ay pétrole ak gaz waaye amoon tamit laata loolu or amoon zircon amoon leneen ak leneen gouvernement bi dina ci bàyyi xel bu baax a baax saytu ko ba xam ndax niñ ko joxee jaadu na ba xam ndax ñi bi ñu leen ko joxee liñ doon xaar ñoom pour ñu motal ko ndax matal nañu ko loolu tamit muy ay audit yoo xamante ni dañ koy def non pas pour fitnaal ay société non pas pour bunt xatal leen waaye pour xool ndax li nga xamante ne moo ci waroon nekk intérêt Sénégal ndax Sénégal jot na ci ndax sénégalais jot nañu ci.